Canal Plus mu ngi di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. il est 8 heures. asalaamaaleykum juróom-ñetti waxtu moo jot ci suñuy sujoo ci ndakaaru jot it ci bépp bànkaasu rajo Sud yi ne ci biir diwaan yi bisimila leen ci xibaar yi ci ñaareelu pàcc bi tey jii di dibéer fukki fan ak ñeent ci weeru mars si atum 2021 Assane Thioune lañu ci àndal moo ne ci xarale gi dañu koy door rek CNES di conseil d'administration confédération euh, confédération nationale des employeurs du Sénégal maanaam kuréel goo xam ne dafa ëmb yenn ci njaatige yi nekk ci mim réew ñoom nag am nañ président bu yees muy Adama Lam euh, moom nag démb la ñu ko teg ci euh, bopp ba ginnaaw gi conseil d' administration boobu lee doon yeesalaat ay bànkaasam ñu fàttali ne Adama Lam boobule day ñëw wuutu ci boobule poste ndem si yàlla Mansour Kama wuy ji suñu borom ci euh, ñaari fan ci weeru août ci atum 2020 ñu fàttali ne ginnaaw ni CNES di amal seen conseil d' administration bi doon amal ab ndajeem bu CNES boobule waxtaan nañu it yi nga xam ne moom la nemmeeku ci. réew mi euh, rawatina jëmale ci mbirum euh, Ousmane Sonko ak euh, ajisaar ñu ñaawlu ko lool teg ci nag daal di nakarlu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ca ñàq seen bakkan ak ñi nga xam ne it daal seeni alal da ca yàqu ñu des ba tey ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji ak euh, communiqué bi nga xam ne moom la ñu euh, maître euh, Mamadou Papa Samba Sow yónnee moom nag mi nga xam ne ginnaaw plainte bi nga xam ne moom la maître Dior Diagne tegoon ci ndoddam moom ak maître Bamba Cissé moom moomu la dana yóbbu ab plainte teg ko ci ndodd maître Dior Diagne ndax daal kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati moom àndu ci benn yoon ñu des ci mbir moomu la sax ak Ousmane Sonko moom mi jiite parti bi di Pastef les Patriotes démb ci gaaw gi nag dafa demoon euh, ci makkaanu waa FDS euh, Guelwaar te nga xam ne docteur Babacar Diop moo ko jiite foofu nag yëkkati na ay euh, kàddu ne askanu ci boppam daal dañu bëgg yorinu wees jëmale ci wàllu politique ci mim réew ñu déglu Ousmane Sonko ci micro Ismaïla Marcel Koli. dinañu dolli loolu ci li ñu amoon déjà ci conscience suñu responsabilité ci réew mi ba lépp lu ñuy def ci action politique lenn rek lañ ci war a jublu. mooy loo xam ne dina nekk au profit des ñun amatuñu droit déjà man li ma mës wax mooy politique ku yaakaar ni utukaay xaalis la da ngay nax sa bopp ku bëgg am ay millions wala ay milliards da ngay dem créer sa entreprise dem góorgóorlu yàlla bu ubbee wërsëg wasalaam moo tax toujours dama naan bis bu ñu yàlla dénkee réew mi de Sénégalais dinañ xam ministre lu muy fayeeku président lu muy fayeeku directeur général lu muy fayeeku directeur lu muy fayeeku bu doon lu jaaduwul la ci jamono ji ñu toll lu ñuy rationaliser la waaye gannaaw buñ ko defee ba pare lu Sénégal yëpp war a xam la ñu jógee foofu nag góor góorlu ba ger détourné xaalisu réew mi escroquerie kenn bu mu ko déggati ci Sénégal parce que lu ñëpp moom waroon tabax suñuy hôpitaux waroon a joxe ay liggéey ak yooyu ay nit jël ko fëgg ko seen poos ñoom denc ko ci ay banque offshore koo ci gis tey milliardaire la ci ñoo xam ne ba démb ak barki démb amuñu woon paasu taxi loolu musiba la cim réew réew mu la ëpp loolu moo la gën a tardé kon politique lu noble la politique jaamu yàlla la nit boo defee politique na nga ko war a defee amaana nga dem yowmal xiyaam sa dara matul yàlla ne seet naa li nga doon sonn ci sa askan kon loolu responsabilité la boo xam ne kenn ku nekk ñu def ko war a jiital mais politique du nax sa askan ba tax loolu lépp ay jàngat la ñu war a jàngat ci lii xew désormais Sénégal mënatul nekk Sénégal bi mu woon dafa jot ñu dajale sénégalais yi am yëg-yëg boobu suñu peuple mérité na loolu peuple bii ma gis mu génn wallaahi mérité na leneen lu dul li ñu gis Sénégal euh, dafa am situation xam boo ci tollee te am lu askan bi wone ci cofeel ak ci mbëggeel dafa am lu bari loo xam ne mënatoo ko soo ko bëggoon sax mënul demee noonu ki doon àddu ñuy lu mooy Ousmane Sonko jiitee parti bi di euh, Pastef les Patriotes demoon démb ci gaaw gi seeti ki nga xam ne mooy docteur Babacar Diop ginnaaw jàppale gi nga xam ne moom la ko jàppale woon ci mbiram bi nekk ci digganteem ak Adji euh, Sarr ki fa teewaloon euh, waa Sud FM nag mooy Ismaïla Marcel Coly doxu nemmeeku bi la dafa bokk ci dogal bu mu jël ngir daldi nemmeeku ji ñépp ñi nga xamante ne jàppale nañ ko ginnaaw bi mu nekkee ci ay jafe-jafe ki firnde lu ñu mel di Ousmane Sonko di leader bu Pastef la koy firndeel ni tey ji demoon na nemmeeku ji njiital FDS lay gelawaat dafa am loo xam ne FDS ak docteur Babacar Diop dañ ko wone ci taxawaay ci mbir mi mooy biñ coow li ne këtt ne jonn balaa kenn di ci addu ba ci man mii nga xam ne may ndeyu mbir mi defe naa ci benn site laa njëkk a gis déclaration boo xam ne docteur Babacar Diop def na ko muy déclaration de principe waaye déclaration de de soutien absolu ñu génn ci loolu sol dalam ñëw sama kër toog waxtaan ak ñun ne nag lépp lu xeex bi laaj dinañ ko ci joxe te damaa bëgguñu ñu impliqué ma ba lépp lu ñuy waajal ci activité ci action ma yëg ko mun cee bokk maag ñi ma àndal nit ñi di génn di xeex defe naa kenn jiituwu ko ci ak dem toog ci plateau yi communiquer ak sénégalais te defe naa mboolem seen communication yooyu boo ko boolee ñeneen ak ñeneen ak ñeneen rawatina sama avocat Aïda mboot ak député yu mel ni Moustapha Guirassi Cheikh Bamba Dièye Cheikh Abdou Mbacké ñoom Mame Diarra Fam Aïssata Sabara ak ñoom seen mbooleem seen communication yi defe naa bokk na li ubbil sénégalais yi seen i gët ci li nga xam ne moo fi xew te wax na ko muy complot waaye yemul ci loolu kese keroog bi may génn sama kër di wuy ji mercredi 3 mars defe naa benn leader politique moo àndoon ak man ci sama convoi benn fajaru ñëw taxaw sama buntu kër te po politique boobu mooy docteur Babacar Diop kon su ma ñëwee tey fii logique la dama fi war a ñëw. moom Babacar jóob ginnaaw bi mu rafetlu tànk nemmeeku yi. mi ngi wot ñëpp bokk maasee ngir gën taxaw lii di démocratie ci mim réew. di ko wax askan wi yëpp FDS Sénégal moo ko ñor ak ñëpp ñi nga xamante ni am nañ yitte ci réew mi ñëpp ñi nga xamante ni am nañ yitte Sénégal changé ak fu ñu mënti nekk ak fu ñu mënti bokk ak lu ñu mën a gëm ñooñu nañu xam ni ñooñu dinañu gis ay alliés ci ci ci waa ci FDS. lu mooy doxu nemeeku bu muy def ci Babacar Diop nag noonu la ko fas yéene defee ci cëpp ki nga xamante ni dugal na loxoom ci coow mi lu demee li ki kilifa diine yi yi njabootu way loru yi ak ñu ci jële ay gaañu gaañu Ismaïla Marcel euh, Coly ñu fàttali ni ci kanam danañ gën a dégluwaat ki di docteur Babacar euh, Diop nga xam ne moo doon dalal euh, démb kii di Ousmane Sonko jiite parti bi di Pastef les Patriotes ñu des ba tey ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak jeexital yi mu am ndax ki teewaloon parti réew mi ci ca na fi mu toll ni daal dafa tekki ndombo tànkam dem wi ji nag parti bu Ousmane Sonko di Pastef les Patriotes moom Moustapha Kadiali Badji démb la ko xamle ñu déglu ko ci micro Birama si fan yu néew si ginnaaw. Sénégalais yi dund li nga xamante ni vraiment. defe naa ñëpp ko métitlu mais loolu dama jàpp ne firnde la parce que peuple bi moo wax peuple bi moo wax lu mu bëgg donc si loolu damay wax ne ñuy jiite réew mi war nañu xam ne kenn du négocier avec son peuple on satisfait ses revendications donc ma teg si ne on méprise pas le peuple on l'écoute donc dama jàpp ne lu fi xewoon la dernière fois ñu nekk ci kaw dañu war a dég man personnellement déglu naa peuple bi te xam naa ne dëgg bi si Ousmane Sonko la nekk looloo tax ma xalaat ma jàpp ne dama war a jël sama responsabilité rejoindre le président Ousmane Sonko au PASTEF avec les patriotes ma continuer sama engagement politique si wetam ginnaaw loolu damaa décidé démissionner sama porte coordonnateur départemental de réew Rewmi ak bi ñoo Bignona Eh, ak si responsabilité bépp ndomb tànk bi nga xamante ni am naa ko si réew mi ba pare ma xamal la nii bi may jël décision bi waxtaan naa ak samay xarit tey instant may wax ak yéen am na responsable yu bëri yu réew mi nga xamante ne ànd nañu d'accord nañu ak man te pare nañu maa topp si décision bi ma jël mais également am na militants yu bëri yu nga xamante ne d'accord nañu ànd ak man te si fan yu néew dinañu organiser conférence de presse à Bignona ak ñooñu ñëpp ñi nga xamante ne d'accord nañu rejoindre la politique du président Ousmane Ousmane Sonko pour que vive le Sénégal donc man en tant que ancien en tant que donc membre fondateur des partis fidèles force intégrée pour la démocratie et la liberté ma bokk suñu sànc de parti Rewmi doon ancien membre bureau politique bu Rewmi doon ancien membre secrétaire national bu Rewmi di doon encore coordinateur départemental de Rewmi à Bignona tey nag nekk naa militant PASTEF aux côtés de Ousmane Sonko pour ensemble ñu mën a mener le combat donc pour tontu sa question émission bi rek dama décidé ne du wax si réew mi du ma wax si si euh, leader Idrissa Seck li ma leen mën a xamal rek mooy fan yi passé comprendre naa message du peuple sénégalais wala sénégalais dañu jàpp ne soit bu gën si ñun mooy Ousmane Sonko. ki doon àddu ñuy teewlu mooy Moustapha Kadiali Badji teewaloon parti réew mi ci département bu Bignona mu tekk ndomb tànkam yi mu amoon ci boobule parti yëpp dem doon militant wu euh, Pastef euh, les patriotes bu Ousmane Sonko. Sonko ñu des ba tey ci mbir moomule ak euh, yëngu-yëngal yi nga xam ne moom la fi euh, juróon ba ñenn ñi ñàkk seen bakkan ñi ca des ñu teg leen ni loxo mouvement pour la citoyenneté africaine di MCA ñoom nag li ñu leen soxal mooy ñu ubbi ab lonket daal ngir euh, képp koo xam ne dañ ca laale yoon dal sa kaw ci beneen wàllu it MCA ñu ngi sàqu daal ñëpp ñu nga xam ne dañ leen tegoon loxo jëmale ci yëngu-yëngul yooyu le ñu teggi leen loxo président ba mi ngi wuyu Basirou si moom la déglu ci micro Birama Ndiaye. depuis le 3 mars ñëpp xam nañ lu rembeel réew mi mooy affaire xale bu jigéen boobu ñu naan Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba loolu gis nañu plongé ne Sénégal dans des violences sans président gis nañ tamit ay doomi aadama génn nañ ci àdduna gis nañ tamit ay policiers yoo xam ne jël nañu ay seeni fetal tiir ko ci ay doomi aadama rey leen donc loolu dafa nekk loo xam ne image yi ñëpp gis nañ ko mu ngi circuler partout à travers le monde ñun lu ñuy ñaan ginnaaw nag ay jàmm mooy justice Sénégal na nekk une justice d'abord indépendante. lu ñuy ñaan mooy actuellement nii mooy nit ñi nga xamante nañ faat nañ leen donc nañu na justice def liggéeyam responsabilité yi ñu situé ko dëng maam dëng ko mu am procès ñi nga xamante ne gis nañ leen ñuy tiire ay nit ñu jàpp leen conduire leen en justice mu am procès euh, ñu teg leen ay daan ñi nga xamante ni nag ñoo faatule donc mu am procès ñu indemniser leen. donc loolu moom mooy loo xamante ni dañ koy dañ koy sàkku waaw di ñaan président de la république nag lii xew nii nii nii nii muy tiré ci ay leçons yu claires mu xam ne vraiment lecture bu mu ci war a am mooy kat mu jéem a vraiment euh, teg réew mi ci ay ray dans de très bons rails mu xam ne également troisième mandat ce n'est pas une question loolu la loolu moom mooy du ñu ci war a tiré ci affaire yi donc ñu wax ne président de la république bu fekkente ne bëgg na jàmm mooy ñi nga xamante nit ñi tëj nañ leen nañ leen libéré waaw nañu libéré ñu ñu tëj ñëpp muy Guy Marius Sagna muy ñeneen ak ñeneen te Guy Marius dañ koy félicité waaw ci taxawaay bu mu taxaw parce que tey jii nii lu xew nii ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko taxul Sénégalais i jóg. lu tax Sénégalais yi jóg mooy xeex injustice ça c'est un mais xeex loo xamante ni on on vécu trois cents ans de de la traite négrière sans parler la colonisation et le néocolonialisme bu ngeen xoolee xale yi lu ñuy fu ñuy jëm yëpp. mooy ñu ngi dem ci ay Auchan ñu ngi dem ci ay SGBS ñu ngi dem ci ay donc ay Total mais yooyu yëpp ce sont des ce sont des sociétés françaises lu ñu bëgg a wax mooy tey jii nii doy na doy na doy na France mënul continuer di di donc di di garantir suñu xaalis France mënul continuer di di donc di di fabriquer suñu suñu xaalis suñu monnaie di ko fabriquer à partir de la France ki doon addu di Bassirou Sy président mouvement pour la citoyenneté africaine ñoom nag dañoo bëgg ñu bi ab lanket ngir leeral euh, ñi ñàkk seen bakkan jëmale ci yëngu-yëngu yi teg ci te ñi nga xam ne ñoom lañ tegoon loxo ñu génn leen ci euh, kaso yi ci mbirum euh, Ousmane Sonko ak aji Sarr sax lañuy ñuy des ak suñu ganub xibaar yi. ganu bés bi. ganu bés bi mooy docteur Babacar Diop jiite FTS les Guelwaars du les forces démocratiques du Sénégal ginnaaw ñu fa démb euh, ki jiite parti Pastef di Ousmane Sonko ñëw nemmeeku si euh, ñu déglu docteur Babacar Diop ci micro Ismaïla Marcel Koli. keroog bi nga xamante ni tuuma jóg na ca tuuma nag alalu gor la. ndax am na ñoo xam ni moom tuuma du leen dal ndax soxlawuñu ko nit ñi baax di wër mbaax di góor góorlu ñoo ñu la tuuma di dal ci seen kaw keroog bi ñu ko déggee euh, yàlla def ñu bokk ci ñi ci jëkk àddu wax ni complot la wax ni tuuma la wax ni président Macky Sall fa mu daan jaaraat rek la jaaraat mooy fexe fu mu jaar ngir faagaagal ay adversaire am ni mu ko defee ci Karim Wade ni mu ko defee ci xalifa Ababacar Sall ñu nit ñi jàppoon ni foofa rek la bëggoon a jaaraat instrumentaliser encore suñu justice ngir dal ci sa kaw fexe ba bu ñu demee ci élection 2024 doo ci mën a bokk ci jongante yooyu waaye ba ñuy nas seen complot xalaat nañ lu lu bari waajal nañ lu bari waaye xalaatuñu woon askan wi askan woowu nag wan na leen ni bu ngeen di di seeni mbir de leen ñuy bàyyi xel ndax ñun ñoo yor doole ji ñun ñooy dogal ñoom dañoo fàtte woon loolu loolu la leen askan wi fàttali keroog ba ñu jógee ñun waa FDS euh, dugg ci xeex bi dañ ko defoon au nom des principes ak ay valeurs yoo xamante ni moo tënk suñu parti moo tënk suñu manifeste muy principe de justice de liberté de démocratie ñun ci suñu serment dem nañ ba wax ni képp koo xamante ni néewal nañ la doole muy fii wala ci Afrique wala ci bitim réew ñun devoir la pour ñun FDS ñu indil la suñu taxawaay moo tax Côte d'Ivoire xaw nañu sori sori nañu sori ñu bi Guillaume Soro nekkee ci ay difficulté ngeen fàttali ko dama bindoon bataaxal ci boppam indil ko suñu soutien niveau de FDS fii ci Sénégal Karim Wade ñun duñu ay libéraux apporteroo nañ ko suñu soutien Khalifa Ababacar Sall saa mu nekk suñu candidat wala saa ñu jàppale ko suñu soutien ba keroog bi may jóge PS lettre de démission bi ma bind Ousmane Tanor Dieng dernier paragraphe maa ko naan bu leen neexee ngeen ànd ak Macky Sall lu leen neex ngeen def ak Macky Sall waaye xalifa Sall war ngeen koo taxawu mu génn ci kaso bi. donc kon au no de ces valeurs de ces principes de liberté de démocratie de justice moo taxoon ñu taq ripp ci ci xeex bi ni ko xale yi di wax. moo taxoon ñu mënoon a jàkkaarloo ak Sall Biége ni ko Ousmane mii nanga defoon ak gars yi doo ko def ak moom. Euh, kon Ousmane liñ def suñu bopp lañ ko defal ndax. bu Macky Sall réussiroon li mu bëggoon ci yow kon ñun ñëpp ñoo ciy topp. beneen doon naa ko wax ak ñenn ci opposition bi bi ñuy waxtaan ma ne leen am na ci ñoo wax naa leen ku jàpp ni mbir mii mën nga cee profité da ngay nax sa bopp. ndax li fi bu Ousmane jógee li ko fi yóbbu du fi bàyyi keneen kon ñun ñëpp nañu ci jàpp xeex ba Macky Sall lii mu tegaat ko ci suuf. FDS engagé wu ci bu baax a baax mais ngi def ko naturellement parce que maa ngi la koy wax léegi yàlla dafa def man injustice mënuma koo supporter mën na maa am divergence ak ku ne nekk adversaire ak ku ne Macky Sall sax mais su ma gisoon ne loo ni ne injustice la bu ñu ko teg ci moom capable naa défendre ko capable naa ku ñu teg doole ci teguwul ci yoon am naa capacité ak koo mënti doon defendre moo tax keroog bi ñu ne da ngay wuyu ji yaakaar naa jibi mi sa chef de protocole maa koy yee keroog <laughs> maa maa leen yee ndax keroog santiment bi ma amoon mooy dama mel ni ko mu bokk ak yow ndey ak baay parce que injustice boobu metti na ma woon torop fajar laa fa ñëw maa leen yee keroog pour gunge la ànd ak moom ñenn ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci Pastef soo ko mel Ousmane Barom moo ma doon waxtaan ni moo docteur bu ñu jàppee Ousmane Sonko jàppale du am sens. mu amaat leneen lu ma gënoon na révolté bi ma ñëwaatee ni ñu toroxale sa sécurité bi bis bu ne wax naa ko ci média yi waxati ko. parce que loolu kenn nettaliwuma am na ay video nit ñi dañu gis ay vidéo mais c'était sous mes yeux quand j'ai vu gendarmerie ni ñu toroxale ñenn membre sa sécurité et ça m'a fait profondément mal jàpp ma woon ni Sénégal bii ñu xam gendarmerie soxla woon na loolu et jour boobu laa ne bu fekkoon maa ngi woon cent pour cent ci xeex bi xeex bi léegi maa ngi ci deux cent ba trois cent pour cent parce que image yooyu métti woon na ma métti woon na ma torop torop torop et waaye yàlla may ñu ci ndam ba li ñu ci bëggoon mooy Macky Sall du gañe xeex bi ba nga libre ci mën a ñibbiwaat sa sa kër mën a dellu ci sa sa njaboot kon loolu ñu ngi ci sant yàlla di ci sant askan wi di wax askan wi rek nañu yokk taxawaay nañu yokk mobilisation xeex bi day doog a tàmbali rek am nañu des ci kaso bi te yéen waa FDS xam ngeen leen seen i partenaire Guy Marius Sagna mon ami mon frère mon camarade Guy Marius Sagna mi ngi encore ci kaso bi kon xeex boobu nekkul ni day tàmbali lépp lu ñu mën front bi mën ko muy M2D dinañu ko def ngir ñi nekk ci kaso bi muy ñi nekk ci mu bokk ci mouvement sociaux yi ak mouvement citoyen ñu bokk Pastef ak fu ñu mënti bokk rek ci sénégalais yi nga xamante ni jàppoon nañ leen ci defuñu dara gor yi ñu jàppoon ñoom ñëpp ñu mën leen a bàyyi ñu mën a ñibbi seeni seeni kër ca front bi md taxawaay bi mu ci war am dina ko am li xew démb suivre ngeen ko xalif bi ñaan na ñu bàyyi mais jàpp nañ ci boppam ah fan yii di ñëw Macky dina dégg jéem leen a bàyyi mais su leen bàyyiwul it lañ daan def ci ay mobilisation dinañ ko continuer ndax dal stabilité boobu ñuy wax mënul dellu si lu dul ñi nga xamante ni ñi ngi ci prison yi ñi ngi ci kaso yi ñu bàyyi leen ñu mën a ñibbi. di yëkkati aussi sama njaal e, jagle ko ñëpp ñi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan c'est des martyrs martyrs de la démocratie martyr de la liberté ginnaaw gi ñu dalalee suñu ganu bés yi di docteur Babacar Diop di force démocratique bu Sénégal ñu dalal keneen muy Josette Kaly mu ñëw fàttali ñu li gën a fës ci wàllu xibaar ci ay bés bi ñu ne te mu jëm ci jeex. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. cong bu waay fippu amal ci àllarba gi ca Sikku nekkee ca Casamance benn caporal chef ñàkk ci bakkanam ñeent ci ay takk der jëlee ci ay gaañu gaañu ginnaaw bu ab miin kalaatee bi seen oto jàllee ba noppi yooye waay fippu amal ay sox jëmale si ñoom laata ñuy daw nag wutali frontière suñu digg ak réewum Guinée Bissau Moussa Dramé. ci xayma buñ jotagum def am na it benn caporal chef boo xam ne it dañ ko faat mu am ci yeneen ñeenti militaires yu ci jëlee ay gaañ gaañ yu métti métti ñu raw leen ci centre hospitalier bu nekk Sigicoor li ni mel am na kaddu yu jege l'armée ñoo xam ne dëggal na ko it te bi la mu ngi amee ci alarba bi laata timis di jot ci tund bi la di Sikum féetew ci arrondissement Djibanaar département Goudomp ci bët Saalum réew mi ci kaddu yu ñu joti ba tey ne ñu ci ndaw yi lay bootu ci MFDC di mouvement des forces démocratiques de Casamance dañoo daal di teg ab dëgg sarax ci militaires yoo xam ne doon nañ dem wutu seen i nattangoo nekkoon ne it way fipp ñoo ko ci teg te it ne dañ ak it seen i fusil automatique ñaareel pick ngir it jàppale askan yoo xam ne it ñoo di ay daaw laaxu yi doon dellu siwaat seen i barab dëkkuwaay ci mel ni Sikun Bisin ak Senghor li ni mel tax na it ba ñuy samp ab laaj di bëgg a xam ndax it wéefëpp yi di ay bande armée yoo xam ne ñoo ci nekkoon ñoo bëggoon dellu siwaat seen i barab yooyu lépp wala bokk dafa tombeel ñi dal di amal lat attaque ak na mënta demee attaque bii lay xam ne si moo amee dafay nagamal yaakaar boo xam ne moom lañ ci amoon war a jëmee ci wàllu tekk tekkaare moo xam ne fi mu toll nii am na sax ay xeetu talof-talof yoo xam ne it ñàkk déggoo ci biir MFDC waaye tamit liñ ci seen ci diggante MFDC ak it nguuru Sénégal ngir jàmm ji leet ñi xaatim kayit ba faw affaire Ousmane Sonko Adji Sarr leaderu parti Pastef ñu placé ko su contrôle judiciaire ci altine gi ginnaaw janoom ak doyen de juges di Samba Sall moom nag ñu ngi ko toppee wàllum siif ak menace de mort Abdoulaye Diop. mbégte bu rëy moo daa di am fu soriwul woon tribunal bi ginnaaw ba ñu xamle ni bàyyi nañu Ousmane Sonko teg ko ci control judiciaire ñu ñëw ngir wane ko seenub jàppale militant ak i sympathisant di wane seenub mbégte. dama kontaan ba mënuma wax. billaay Ousmane Sonko moom jàmbaar la. ay manifestants yu rek wéy di sàkku ñu bàyyi ñeneen doomu aadama yi teg loxo. Ousmane Sonko gënul ñu fi nekk. ñoo xamante ne leen jàpp si manifestant grâce ak Ousmane Sonko la. kon tey bu leen libéral dinañ gànnaat encore comme ni. massivement nag kon ñu koy interpellé moom Macky Sall. na libéré yeneen ndaw yi ñu fa nag sukkandikoo ci maître Ciré Clédor Ly di kenn ci ñu koy layal. seen complot moom moo échec te te loolu réew mi ñoom ñoo taxaw ne seen yeeg tuuma yi doy na nañ ko dàkkal. bàyyi bi ñu bàyyi njiital pasteef ñu bëri jàpp ni benn jéego la jëm ci ndam li ba tax na ñoom ñu ne xeex bi day wéy ba tey. ay waxtu dong ginnaaw bañ ko bàyyee Ousmane Sonko amal janoo ak taskatu xibaar yi mu jàpp ne njiitum réew mi nax na population bi ci noonee sax mu woo leen ñu wëyal fipp gi Ousmane Sonko sàkku nag ñu wàcc woo ak agenda bi nga xamante ni teg na ko te juróom-ñeent ci ay ponk ñu nemmeeku leen ngir réew mi mën a génn ci crise politique bi mu nekkee Amadou Moustapha Dieng. bés ni tey ñun ku jéggi ñoo am doole bi lu ni mel Ousmane Sonko wax ginnaaw bu mu génnee ki ak doyen wàllu kujje gi Ousmane Sonko di xam ne ne ay la yéwén doxalinu askan wi mooy wane ne fu mu nekk nii nguur gi nekkatul ci loxo Macky Sall waaye mu ngi ci loxo askan wi askan woowu nga xam ne ñoo xeex ba mu génn mu ngi leen xamal ne tey lañu gën a war a taxaw ngir daal lépp lu jëm ci wàllu nataxal démocratie dañ ci mim réew ci noonu muy xam ne ne fi mu nekk nii moom askan wi dañoo war a gën a taxaw te xam ne seen taxawaay bile mooy tax ñu am ndam gën gaa néew fii ak 2024 waaye bëggul dégg benn yoon ñuy waxtaane lépp lu jëm ci wàllu ay gouvernement de majorité ñoom fu mu nekk nii dañoo taxawal seen agenda bopp di ay ponk yoo xam ne dañu ne fala budd Macky Sall war na cee jaar bu fekkee ne bëgg na jàmm ci mim réew ci ponk yooyu le bokk na ci daal di dàmp njabootu ñu ñàkk seen bakken ci xeex yi le ba noppi daal di ubbi l'enquête boo xam ne dafay tëddee ñaaxaanaay ngir rax ci doy daal di dàmp it képp koo xam ne am nga gaañu-gaañu moo xam siwil nga wala militaire nga waaye it daal di bàyyi ni mu gën a gaawee ci amul benn condition ñu ngi jàpp jëm ci wàllu mbir mi benn yoon kuy bundu xataal ak xoqatal ñu nekk ci ku jégi waaye it bëgg nañu ñu xam borom doole yi raxoon ci biir yëngu-yëngu yi ñooy ñan te it kan moo leen yónni ñu xam ne ne bëgg nañu nu mu gën a gaawee ñu amal élection libre et transparente te it mu am kuréel gu tëddee ñaaxaanaay guy yore lu ni mel ci noonu sax ñu ngi ñaan ñu tekki ndomb tànk Antoine Félix Diome niki noonu amal app bi ñu ko waree élection locale yi élection législative ak élection présidentielle te loolu yi benn dàqati bañ cee am bokk na ñuy laaj ñu delloo seeni droit di candidat yu mel ni Khalifa sàll ak Karim Wade ci bu muy jeexal Ousmane Sonko jot na woote woote bu am solo jëm ci wàllu jàmmu Casamance muy woote képp koo xam ne way fipp nga nga daal di joxe sa ngànnaay armée bi gën ngaa néew fii ak juróom benn weer tax si dolli nga fexe bu ñu bind bépp ndell boo xam ne askanu moo ciy loru mouvement pour la défense de la démocratie ñoom ñoo teg ci suuf mobilisation gi nga xamante ni ci gaaw gi lañ ko fas yéene woon a amal ginnaaw bi leen ko xalif général de Mourides ñaane waaye ci loolu m d moo génnee ab mémorandum boo xamante ni fukk ci ay ponk lañ si nemmeeku rawatina ci bi ci gën a fës moo di ñu bàyyi ñii ñu teg loxo te ñoom ñu jàpp ne ay prisonniers politiques lañu. ginnaaw boobee coow njiitum réew mi Macky Sall ci ab déclaration moo woo sénégalais yi ci dal te ñu bàyyi yoon mu def liggéeyam président de la république xamle waale ni couvre-feu bi léegi zéro heure lay tàmbali ba juróomi waxtu ci fajar gi ci région yu Dakar ak yu Thiès waaye dina amal jekk-jekkalaat ci wàllum koom-koom ngir ndaw ñi mën a gis seen bopp ci wàllum xëy mi ñu teewlu ko. danaa def programme bu bees boo xam ne dina toll si ñetti téeméeri milliards ci ñetti at yi muy téeméeri milliards at mu ne. li ñëw fekk lépp liñ def. ngir ñu mën leen kuñ si formé rek ubbil la nga financé la sa liggéey noo koy doxale loolu te itam ñu fexe ba circuit yi ak procédure yi du nekk yu jafe lool xam naa ne itam couvre-feu bi andi na gàllankoor yu bëri ci yenn liggéey yi couvre-feu bi léegi dinañ ko toxal 9h ci guddi ba minuit jëm 5h mat loolu dina tax guddi gi ah yenn activités yi dana mën a jógaat li ma bëgg waxaat mooy suñu réew mii ak réew boo gis léeg bu jafe-jafe bu mag amee lay tax réew ma mënal boppam mooy nit ñi boole seen bopp donte am nañu ay jafe-jafe seen biir ndax jafe-jafe du ñàkk si àdduna boole seen bopp ba nga xam ne li ñu bokk muy sunu gaal ñu fexe ba dara du ko yàq danaa def loo xam ne day dëgëral démocratie Sénégal day dëgëral itam jàmmoo ak mbokkoo si diggante nit ñi maa ngi ñaan waa réew kenn ku ne fu mu mënta féete na dox ngir jàmm ji gën a sax ngir dal gën a am alxames gi yemoo ak fukki fan ak benn la ñu amal journée de deuil national boo xamante ni njiitum réew mi Macky Sall moo ko décrété drapo yi nekkoon en berne ci réew mi yëpp ñu amal ay ñaan ngir ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan ci manifester yu métti yu ñu nemmeeku woon ci bés yi ñu génn ñeel libération leader bu parti Pastef bi di Ousmane Sonko. juróom-ñaar fukk ak benn ci ay station service la ñu càkkat càkkatee lu toll si ñeent fukk ak juróom-ñett yi di ay station Total secteur pétrolier bi moo nekk di amal ay xayma ginnaaw manifester yu métti yi waaye fu ne ni nag lu ñu ñàkk ci koom xamaguñu nu mu toll donte sax seen jëwriñ mu ngi xamle ni liñ leen ameloon ci bor dinañ ko lijjanti ba mën a doolelaat secteur bi ñu teewlu ci ma Anta Gueye di conseiller technique ca ministère bu pétrole ak bu hydrocarbure xam mooy lu mat euh, juróom-ñaar fukk station daal xam nañ ne yàq nañ ko léegi nag euh, ñaata la ci alal ñoom ñu ngi def seen xayma parce que li ci ëpp solo mooy euh, équipement yi nga xam ne moom lañ mooy pompe yi yi joxe su doon yàq nañ ko mais également li ci gën nekk ci boutique bi xayma ko jëbal ñu toogam ñu ak ñu fexe daal ba dimbale leen pour ñu a soqaleku ne mën nañ xalaat ne loolu moo gën a yemamaay te loolu moo gën a loolu lañ mën a gën def mooy li nga xam ne yore na leen ko ci alal mu seet na leen leen ko fay ci diir bu gaaw te li ci ëpp solo surtout mooy nan la ñuy ñaax askan wi pour ñu moytu station service bi parce que li nga xam ne yàlla mooy ko sutura parce que mbàndu essence bu tàkkee dafa nekkoon ñëpp mën nañu wax ne ñoom ñëpp dañuy dee te bu ñuy dañuy lakk nekk donc yàlla mooy ko sutura àllarba yemoo ak fukki fan ci weeru mars bi ci conseil des ministres njiitum réew mi Macky Sall moo xamle ni état de catastrophe sanitaire bi dinañ ko yemal ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars gi ci région yu Dakar ak yu Thiès ñaari région yooyee nga xamante ni jàpp nañ ni ñooy épicentre bu Covid 19 fii si réew mi ñu fàttali leen ni boobee mesure nag ñu ko jëloon na ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier gi ñu weesu. ni réew yu bëree ca tugal ajee jëfandikoo vaccin AstraZeneca tax na ba jëriñ gi ñu dénk wàllum wérgu yaram di dalal xelub sénégalais yi Abdoulaye Diouf Sarr mooy xamle ni fii lépp a ngi jaar yoon te suñu réew nekkagul ci yoonu ajandi campagne vaccination ñu teew lu ko mi ngi yëkkati yooyee kaddu ginnaaw ba mu doon dalloo ci ajjuma gi lu toll si 2500 ci ay doses yu vaccin AstraZeneca nga xamante ni réew mu Inde moo ñu ko doolelee. di dalal euh, xelu askan wi di wax ne Sénégal yàgg na lool Euh, si vaccination mu maîtriser ko lu ëpp ñeent fukki at suñu dëkk ñu ngi donc euh, gérer ay vaccin bon dëkk mbiru vaccin du nekk loo xamante ne dafa bees si moom vaccination nag boo koy def da koy gunge ak ñoo xamante ne dañuy surveiller ba lu si am rek ñu mën ko donc euh, indi pour que ñu xalaat du fi ñuy wax ak yéen suñu système de surveillance boo xamante bés bu nekk day liggéey pour xool effectivement ñu jël vaccin bi yan jeexital la am si ñoom waneegul dara loo xamante ne danañu tax ñun ñu am inquiétude loolu vraiment ñu koy rafetlu bu baax baax di wax tam ne euh, AstraZeneca organisation mondiale de la santé daf ko homologué mooy deuxième vaccin bu mu bu mu homologué bon rek mbir mi mi ngi jaar fi mu war a jaar may euh, wax tam ne puisque Europe la agence européenne du médicament tam waxaguñu dara loo xamante ne tey na suñu xel mais nag réew mooy euh, donc si souveraineté am bu fekkee gis na cas yooyu parce que bu ñu ne 5 millions ñu gis fanweeri nit réew yooyu mën nañ ne bon écoute ñun nañu taxaw pour xool xam mais li ma mën a wax rek maa ngi rassurer sénégalais yi mais système de santé Sénégal am na donc instrument de vérification de surveillance et de contrôle yoo xamante ne mën nañ ko wóolu bu baax banque yoxool SAMES fas yéene amal ci fukki fan ak juróom ba jàpp fukki fan ak juróom benn ci weeru mars gi ci réew mi yëpp ñuy xamle ni duñu joxe benn document bu légal ci yooyee fan syndicat bi mooy sakku ñu gën leen a bàyyi xel waaye it ñi nga xamante ni ñoo di ay médecin ci spécialisation ñu mën a jot ci vaccin anti Covid 19 bi. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. sa Elimane Wa. fanweeri simili moo tegu ci juróom-ñetti waxtu ci euh, rajo Sud FM yem ak fi ñuy yem ci euh, xibaaru suba si ñu sant leen gërëm leen ci safoo bi ngeen safoo rajo Sud FM sant it bi ñu ci àndaloon bu 9 jotee ak jàmm dinañu fi teewaat ngir dégtal leen xibaar yi ci ni mu gën a gàttee ñu yendu ak jàmm.